ci cadre xex euh, pandémie bi nga xamné ci la nek bobu ba euh service d'hygiène ñëw fi ci Touba appuyé ci brigade spéciale d'hygiène de Touba bi té kilifa gi Salam Keita jité ko pour que véritablement de temps en temps importance Touba ni mel ak poids bi mu am di point de vue démographique tax ba véritablement ñom ñi ngi def bu baax liggéey bi ni leen ko santé waaye soxla nañ de temps en temps ñu ñëw leen appuyer leen ci lu mel ne yu mel ne ay marché yi nga xam ne marché Ocass kenn ku ne nga xam ne mën nga ne sax marché international la pour que véritablement ñu mën koo désinfecter parce que fépp foo xam ne nit ñi dañ fay dajee foofu dañ ko war di désinfecter régulièrement mu ànd ak nag nit ñi respecter mesure barrière yi nga xam ni dañ koo tëral loolu bu ñu ko defee véritablement dana tax ba maladie bi man yàlla mën noo tural mu jóg fi ndax feek virus bi mi ngi euh, circuler daanaka doo mën a yow li nga mën a garantie rek mooy ku feebar danaa ko faj mm-hmm. loolu rek mën a garantir état buloo mën a wax ne mën na maa garantir leneen ku feer daal mën naa ko faj lay mën a wax waaye nag da ci am loo xam nii ñun ñii nekk population yi ci suñuy responsabilité la nekk muy porter sa masque saa su di raxas say loxo loxo ci saabu ak ndox di soreele ndaje boo xam ne nii euh, euh, mën nga fa ñàkk bañ dem nga bañ faa dem moo ndax loolu mooy occasion yi nga xam ne nii mooy tax wàllante bi gaaw danoo jël ay mesures ñëpp respecté ko kenn nekku fa di di di di wax am naa amul ak dugg na fi génn fi loolu moo ci génnee Europe gi tamit loolu loolu moo ci génnee kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo toll ci lii waruñu ñun sax danoo am chance mën a jàngat ci ñooñu ci loo xam ne sax mën nañ cee gaaw a am résultat boo xam ne ñi la xëy na sonn nañ ci avant ñu ci yegg kon loolu ñun service d'hygiène loolu lay woo saa su ne population yi dinañ ci soññ ñu xam ne feebar bi ba léegi mi ngi fi parce que feebar boo xam ne bis bu ne nga dégg ñu la nangami kaa yin seet nangam am nañ ko ci wax ne am na nangam yoo xam ne kenn xamul ku leen ko wàll kooku waru ñu yaakaar ne lu tuuti la waruñu koo sobental waruñu koo sàggane Touba moom yàgg nañ fi am ay activité depuis que Covid bi tàmbali maanaam desuñu ginnaaw li nga xam ne moom mooy service d'hygiène ki activité yi nga xam ne dañ koy mëne ci terrain bi mais également di ko mëne ci centre de traitement yi également di ko mëne ci domicile yi te foo xam ne am na ay cas dañ fay dem centre de traitement yi aussi ñu ngi fay mëne activité yu am solo légui nak amna li nga xamni comme ni ngeen ko xamé transmission communautaire yi nga xamni fièvre feebar bi daanaka xamuñu fu mu joggé bo ñëwé Touba nak ñu gis ni amna ci ñu bëre ño xamni ci marché Ocass la donc mu jaral tay ñu ñëw ci marché bi ngir def ko waye aussi continuer programme bi ci yenen marché yi déjà lal nañ benn programme ak marché yi bo xamni comme ni ko président waxé won liggéey benn fan juróom-ñaareel fan bi ñu nettoyé ko loolu déjà ñun lal nañ ci programme bo xamni fi ba juillet ci jaar ci marché yi nga xam ni bu dul marché Touba yëpp it yi ci gën a bëri su ko defee bu ñu àggee ci euh, période boobu ñu defaraat beneen programme pour compléter yeneen marché yi ci des te loolu it bu jeexee maanaam dafa nekk loo xam ne dañu koy reprendre nekkul ni programme bi day jeex rek ñu arrêté ko waaye dañ koy tàmbaliwaat ba keroog comme ni ko suñu kilifa gi waxee marché yi léegi nga xam ne boo ci duggee di nga xam ne vraiment bërëb bi sa xel dina dal la nga fay jënd aussi di nga di nga di nga am yaakaar ni dëgg-dëgg na mu war mel mel na ko kon loolu tàmbali nañ ko euh, moo tax tey ñu ñëw fii pour désinfecter li nga xam ne mooy marché Ocass bi war a continuer programme bi bu suba euh, ba fileeg mois de juillet vendredi bu nekk la marché yi yi nga xam ne ñoom la ñu def ci programme bi comme ni mu ko tëddee danañ def li nga xam ne mooy seen nettoiement bi su ko defee après ci guddi gi service hygiène ñëw